jeewali iblisa isnataytuhu biyaa wali alhamdulilahi rabbil aalamiin arrahmaani rrahiim maliki yawmi ddiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafi alanbiyaa'i walmursaliin sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadin almakiin wa alaa aalihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin ayyuhal ixwatul mu'minuun uusiikum wa nafsi bi taqwa llaahi ta'aalaa bokki jullit yi suñ boroom subhaanahu wa taala moo bind doomi aadama ngir nattu ko boole kook seytaane ngir mu di ko bewloo ak di ko réeral boole kook bakkan boo xam da koy digal ab safaan yenn saa yi ci lépp loo xam ne di fexe ba nit ki li mu war a def mu bàyyi ko wala loo xam ne waru koo def suñ borom da ko koo tere mu di ko ko defloo seytaane nekk ci wet gi bakkan nekk ci wet gi suñu boroom nag ba dëgg la ko bëri yërmande la waaye itam ku tar mbugal la muy muy yàlla ñaar a koy waral mooy lu la yàlla sant defoo ko wala nga defe ko xam ne suñu boroom bëggewu ko noonu wala nga def lu la yàlla tere kon lu mat di euh, moytul waaye yërmande yi suñu boroom nag moo tax mu yoonal jaamu yàlla gu màgg màgg màgg màgg goo xam ne suñu boroom dana ci far mboolem lu nit ki ñaawal di ci yëkkati ay dara jaam leen saay sax mu waral ngërëm euh, ngërëmul suñu borom te nit ki lu mu mën a mën a jaamu yàlla du mat mukk ak jaamu yàllam du mat lu ne day tuub daa tuub suñu borom ne moo nekk képp ku tuubul rek ci tooñkat yi nga bokk wa man lam yatub fa ulaayika humu zaalimoon euh, delluwaat si suñ boroom nag tuub du wàññeeku waaye sax dañ ak mat dëgg la ndax mooy dëgg dëgg lislaam euh, ab jullit day soxla tuub dellu ci boroomam subhaanahu wa taala bari na ci ay jaamu yàlla yoo xam ne dellu ci sa borom ci tuub moo ko gën suñ borom saa su ne nee nañ bu amoon loxo day tàllal loxoom ci guddi gi ngir di laaj ku tuub ngir mu jéggal ko ki nga xam ne daa doo def lu bàkk bàkkaar su guddee suñu borom day mel day tàllal loxoom di bëgg rek ba mu tuub ba mu jéggal ko waaye bu bëccëgee itam mu def noonu ba keroog jant bi di fenke soow nga xam mooy àdduna bu tukki wala boog nit ki toll foo xam ne daa toll ci sukuraat fekk loolu amul rek saabu bu tuubee suñ borom subhaanahu wa taala mën na koo jéggal suñ boroom ci boppam moo bëgg kuy tuub kuy dellu ci moom ba sax day digal malaaka yi ñuy ñaanal ñi nga xam ne dañuy tuub saa su ne waaw saa su ne day ñaanal yi nga xam ne dañuy tuub bu fekkoon ne tuub dana wàcc kenn kon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñoom du ñu tuub te ñoom ñëpp dañuy tuub tuub di dellu seen borom subhanahu wa taala euh, yonent yi ñoom ñëpp ñaanal nañ seenu njaboot euh, yàlla jéggal leen te tuub it dafa am ay njariñ lool am ay texe àdduna ak alaxira kuñ naan sayyidna Huud nee na woon istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi na ngeen jéggalu seen borom ba noppi tuub dellu ci moom saalix waxoon na ne huwa anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha fastaxfiruhu summa tuubu ilayhi bu daal di wastaxfiru rabbakum summa tuubu ilayhi sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne wa an istaxfiru rabbakum summa tuubu ilayhi kon ñoom ñëpp dañoo diggal seen ak njaboot ñu delluwaat ci seen boroom tuub dellu ci seen boroom tuub itam am na njariñ yu bare bare bare ginnaaw bu suñu boroom waxee wa tuubu ilallahi jamian ayyuhal mu'minuuna la'allakum tuflihun yéen ñëpp dellu leen seen boroom tuub leen ndax suñu borom ndax ngeen taxe tuub dana waral dellu sa borom dana waral wërsëg bu yaatu wa istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursili samaa aleykum midraara bu taw amut wala xéewal gi xaw a am nu mu demee su nit ñi delluwaatee seen borom tuub rek suñu borom mën naa wàccewaat xéewal yi jafe-jafe yi àdduna yi am bu tuuboon dellu suñu boroom lépp dañ tuub dana waral wér-gu-yaram wa yazidkum quwatan ila quwatikum euh, kon tuub texel àdduna ak alaaxira la képp ku tuub itam mën ngaa rafet njoot suñu borom subhaanahu wa taala ni jéggal na la waaye tuub nag dëgg nag mooy nu ko sëñ bi waxe woon rek day mel ni am wàccu wàccu wàccu mu wéet du ca delloo borom wéet ko du ca delloo borom nit ki saa bu àgg saa bu fexee saa bu fexee ba li muy tuub rëccul ko rëccu goo xam day mel ni ku wàccu woon wala ku dëgg aw xal noonu muy rëccu yëkkati tànkam bañ koo caa delloowaat kooku saa bu ko defee rek mën naa rafet njort ni suñu borom subhaanahu wa taala jéggal na ko bu defee itam tuub bokk na ci matuk tuub mooy mboolem ñi nga xam danga amal da nga leen a amoonal ay àq nga delloo leen ko ndax nañ tuub dellu suñu borom subhaanahu wa taala suñ bi nee na woon alhaaliku shaqiyu jiddan man xaraj fi haadihi dunya bi zanbin wa xaraj min qabli tawbati nasuhi lil ali maanaam ki taxee di dëgg daal te alku daal mooy ki nga xam daa génn àdduna yóbbaale bàkkaar yóbbaale bàkkaar ndax tuub daa yomb lool nit ki saa bu xëyee war nay tuub su gonte war nay tuub fu mu toll war nay tuub waaye sàggana sàggana sàggan ba tuuboo ah ba faatu moom nee na loolu moom texee di mën koo mënu koo weesu ndax suñu borom jox na la nag saabu boo xam ne ak ndox moo xam ne foo toll war ngay raggu ba set wecc ci bàkkaar kon suñu borom buur bu bari yërmande la euh, ndax koo xam ne bu ko neexoon loo loo def ci bàkkaar mu topp la ko loo def ci bàkkaar rek mu topp ko nga xam ne faaw mu topp la ko waaye def nga bàkkaar mu muy xaar rat bëggaat nga tuub boo tuubee mu jéggal la ak lu bàkkaar yi bari bari bari sa fa saa bu fexee ne bu ngay tuub daal dëggu na soxol suñu borom jéggal na la bàkkaar boo ma def kon loolu yaakaar naa ne dem na ba naan ñi nga xam ne dañoo jàpp ne yàlla du leen baal nee na man suñ nee na suñ borom man damay jéggale bàkkaar yépp waaw waxal ñi nga xam ne dañoo dem ba foog ne suñ borom du leen baal ak lu ñu mën a def lu mu rëy rëy rëy rëy suñ borom nee nañ bàkkaar yépp laa jéggale ba mu des nag bàkkaaru moom yenn saay sax mu jéggale te kenn du tuub waaye ba mu des nag bàkkaaru bokkaale bokkaale daa garaaw moom képp ku bokkaale moom dañ koy tuub tuub bu wéré wéré bañ caa delluwaat kon yàlla nañ sunu borom subhaanahu wa taala jéggal suñu bàkkaar xiir nu ci ñu jaamu ko te may ñu wéet guñ ko jaamu te xiir ñu ci jaamu ko te nangul ñu jaamu ko gannaaw suñu bakkan yi mu xaruñu àjjanaam yi gën a kaw rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi ba axirati xasanatan wa qina azaban naar rabbana la tuzig qulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahab tawil lana umran saxix lana badanan wa hab lana rushda wa tawfiq ya allahu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 أياس من لوهم دجا ولي إبليس إذ ناديته بيا ولي